ambulance médicalisée bu mucc ayib moom la mairie bu ñaaxeen ci ndimbalu partenaire bi di Serigne Seck indi jagleel ko commune bi ak mbooleem village yi ci jokku bis bi ñuy amal nag cérémonie de remise bi mbooleem ñu yëngu si wàllu santé notable dëkk bi jeunesse bi femme yi ak tamit maire yi nga xamante ni ñooy ay ñoñam ñëpp ñëw nañu wuy si ko si biile xew-xew bu mag si ñaaxeen ICP bi di madame Cissé moom moo fa teewal médecin chef district ba kat yii la yëkkati ni kat lii moment bi mu ñëw noonee la baax ndaxte dañ ko tum ranke woon Ba mu ngi leen di nuyu mu ngi jéggalu ci ñàkk a teew bi ndax dañoo ne yeneen ICP yi ne ci arrondissement bi aussi bëggoon nañoo teew mais campagne bi moo leen tënk sous-préfet docteur Ba mu ngi lay nuyu teg nuyoo bi sa loxo monsieur le maire MCD nee na kontaan na lii nga def defaloo ko commune Niakhène kese district bi yëpp nga ko defal ndax ku ne xam na ni ambulance dafa baax ci faj day tax li nga xam ne mooy gën a dooleel faj ku ne xam na ni yenn cas yi nga xam ne dafa aajoo jàllale boo amul ambulance boo ko bëggee jàllale ci beneen anam day jafe kon nag nee na mu ngi lay remercier bu baax ci at noble bi ak sa partenaire muy Serigne Seck nee na remerciement yi am na fu mu commencé mais amul fu mu yem kon nag mu ngi lay jaajëfal ci li nga xam ne moom nga defal district bi Mékhé yépp ndax lii district bi moo ko waroon a def mais comme mat yi mooy demewul noonu mënut a matale lépp boo ko defee à sa place kon loolu da ciy kontaan loolu. kontaan nañ de commune bi ndax loo xam ne. ah lu rëy la te it nit ñi sas nañ ma déglu naa kàddu yi muy chef de village ak pàccoon ak yeneen kàddu yi fi jëm am na lu bëggaa ñaaxeen benn bopp waxoon bi ñu may jox ambulance bi ne ma problème mu gestion la bi ñu ma koy jox ñoom ma ko jox avril 2019 ndax ambulance bi gaare na plus de 4 ans dawul ñoom ñu def possible fexe ba mu daw bi ñu koy teg sama loxo tamit dañ ma ne woon problème mu gestion moo ko yàqoon ah ñun daal loolu mooy suñu problème man ne ko bu soobee yàlla yàlla mooy sàmm lépp nag dañuy sabablu rek yàlla jàppale ñuy sàmm waaye bu soobee yàlla incha allah ba keroog ma fiy jóge ambulance bi de dina tàkk ba keroog may jël caabi teg ko beneen docteur bu fi ne. maire bi kañ citoyenneté bi nga xamante ni Serigne Seck am na ko moom mi partenaire am bi tax lii am ne nag dëkk dëkk bi moom defar dëkk bi moo ko gën te nag doomu dëkk bi lii lay jëriñ jàpp na ni nag doléance bi nga xamante ni faj nañ ko doon na solution totale dina mën a contribuer si santé publique tax nag ba jafe-jafe yi ñu amoon dina mën a nekk ca ginnaaw. te ñun bëgguñu koo teg lu gën a diis exemple bi ma ci joxe wax naa ko ci discours français bi képp ku jaar ci yoonu bopp bi nga romb bopp seen bëyt xool lañ fa investir da wax ne loolu kat bu amoon ci gox yëpp kon président mën naa noppalu maire mën naa noppalu. bu ngeen xoolee da ngeen ko fekk daara moderniste rajo li fa nekk ci ay dongo kenn xamul lu mu toll mooy yor seen lépp mun naa wax ne daanaka kenn fayu fa mooy yor dund ba mooy yor dépense ba mooy yor póot ma mooy yor paj ga mooy yor lépp waaye ambulance bii keroog bi ñu demee ba nga xam ne ñun dañoo bindal ministère de la santé ñu diglu ay ati at bu ñu wootee wala nit ki ñu ne ambulance dafee amagul waaye bu amee ñaaxeen dina ci am ñu dem ba xam ne kat mënatuñ koo ñàkk réunion la ñu toog benn vendredi ndax dañuy def réunion coordination ci cadre liggéey bi ma ne ko ñaateel dañu soxla nañ ambulance il faut nga jàppale ñu ñu am ambulance. te bis ba la ma wax ne da ngeen di xool ban façon ambulance ngeen bëgg UCP bi mu ngi nii dama ko woo ma ne ko ah ñun de am nañ partenaire bu wax ne mën wutal ambulance nee nañu xool bu mel nan la ñu bëgg mu ne yaakaar naa buñ amee bu mel ne bu ma ne ko photo ko nga yónnee ma ko whatsapp bi ma ko ko yónnee moom Serigne Seck moo wax ne bii de mën na noo am bu ko gën kon kooku yaakaar naa ba muy maye def na ko ak yéene ndax bañ ko wan bu baax la poste yu bari moom lañ am waaye dana bii mën na noo am bu ko gën nan wut bu gën bii ma ne ko ah, ajo bismillah man yàkkamti woon naa bay wër parking bi di dem ci concessionnaire di laajte waaye bu ma ko indil mu ne ma mën na noo am bu gën bii ci la wax ne bàyyil ma woo sama xarit yi nekk Dubaay yi wala yi nekk Espagne Portugal dañu ma wutal benn ci lañ ko proposé bii bi mu ñëwee mu xool ko wax ne waaw bii de baax na oto bi man bi ma demee bëgg a changé sama oto bi di ko laaj xottu oto bi rek 40 millions lañ ma wax xottu oto bii 40 millions lañ ma wax ñu ko koy defaral mu ne leen lépp lu doon équipement lu ambulance bi am benn defal leen ma ci ñaar loolu moo nekk ci ambulance bi bi mu ñëwee bi mu ñëwee transitaire bi yéex a indi document yi ku nekk xam na ni port bu fa yàggee nombre de jours yi ne su ko weesoo da fay li ñuy wax magasinage un million fay nañ ko fi ci date bu mu waroon ko magasinage kese un million bi mu génnee li mu njëkk wax mooy defar nañ yëpp ba mu baax mu ne ah oto boo xam ne da nga koy jënd bitim réew indi ko kat changé pneu yi nañ ci def pneu yu bees tàq mu gën a wóor ndax ab ambulance la mu dem wuti pneu yu bees tàq des woo chauffeur bi ne ko dépense bii nga gis nañ ko wutal dépense su bi nga xam ne moo bu manqué dara nañ ci def lépp balaa dem kon kooku yaakaar naa bi mu joxe joxe na ab yéene Mahmadan wax na ko léegi ci discours bari na lu muy def bëggul di feeñ bu ngeen gisee ñu bind ci turam man naa ko wax ne mënees ko ñàkk ba ñu bind. kilifa diine yi teewoon nañu ko su mel ne Serigne Cheikh Bara ak it mbokk meeram yi ak tamit responsable politique yu bari boole kook chef village yi ak ñëpp ñu jokk ci commune bu Niakhène.